wante nit ñiy laaj ndax deretu malaw mën naa fànq bàkkaaru nit ci lu wér wala ay màndarga ak ay firnde la joxoñ ëllëg daawuda wax na ci kuy ñëwi ëllëg ab buur almasi bi ab doomu daawuda bu nar am kilifteef nguur ak doole teewul dina nekk ku suufee am xolu yërmande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 ay sàmm yu dëkk àll baak ay boroom xam-xam yu am alal bawoo penku ñëw màggal si ko seede ne mooy ci lu wër kii waroon a ñëw almasi bi mbind mi dige woon yeesu jàmm suufeelu doon liggéey ci bant nekkoon boroom xam bu mag